ayi ma gi len di ziyare bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa di len jox sen wàccuwaay euh, di ñaan yàlla vidéo bi fekk leen ci jàmm te incha allahu rabbi aussi di ñaan yàlla lépp luñ fi waxtaan ak yéen tey mu doon luy am njariñ ci yéen Euh, gars yi maa ngi jaalewaat suñu mbokk yooyu ñàkk seen bakkan diggante Louga ak Saint-Louis euh, comme ñuy ñëwaat comme niñ koy defee toujours euh, woote d'abord à vraiment que Mansour Faye suñu bàyyee Macky Sall dàq ko na ko sénégalais yi dàq te bu ma nee sénégalais yi on doit prendre nos responsabilités Wa joju budé dañ koy dem fekk ci kërëm sax jëlé ko fa watat ko sanni ko ci biir géej gi loolu la wara def mais Mansour Faye ne doit pas servir un autre jour comme ministre du transport et des infrastructures xam nga yalla buy xawé sutura jaam euh, Danaka, man nañu ne jambi ci bopam du gis c'est les gens nit ñi ko sori koy gis té ñun gis nañu né Macky Sall euh, vraiment c'est pas quelqu'un qui respecte les Sénégalais euh, moins encore quelqu'un qui aime les Sénégalais ndax tay Macky Sall li ñi dund ci Sénégal bu un homme la mëna yem bu dee

lépp lu xew léegi ils veulent en dernier lieu xoolal de nga jox nit fukki at ak benn amul dara lum fa def mu bàyyi ba reenam ba nguuram di waaj a jeex mu bëgg laa imposer waat boppam ba pare lay xam bu ñaawteef mu def lu baax dama indil. Euh, vidéo boo xam ne ndeysaan homme de tenue bi Mansour fay daf daf lu daw si ñëw fekk homme de tenue bi taxaw ndeysaan mu mel ni kuy ñëw wut si ay information homme de tenue bi li ko wax boo ko dégloo waxu mag la ko wax de nee na ko ona a évacué euh, les gens laba bas à Louga parce que Saint-Louis nee na ko ñaari place moo fa am ci morgue bi ñaari place ça c'est la ville de Mansour Faye Saint-Louis euh, dëkk boo xam presque wat un million plus d'habitants ñaari place ñoo fa am ci morgue bi dama leen di déglu loo lii nga xam ne ndeysaan la homme de tenue bii wax dégg nga gars aw ma baaful fii waaye di ngeen ko dégg ministre le ministre dégg la xool leen regardez ce vaurien chemise bi mu sol rek mën naa jënd kaar bi ci boppam xool leen le sapeur. Donc pour l'inconscient, il s'est trouvé que l'hôpital de Saint-Louis ne disposait que de deux places pour mort disponibles. Deux places L'ensemble des conscients ont été évacués vers l'hôpital de, de Si la mort est pleine, on sera obligé de communiquer sur qui est Sapeur bi daf ko l'hôpital de Louga et l'hôpital de Saint-Louis lopital de Louga ne dispose que deux places dans la morgue deux places maanaam Mansour Faye dëkk ba nga xam ne moom fa la nekk un million de personnes ci dëkk ba nee nañu deux places moo am ci hôpitalu Saint-Louis hôpitalu Louga nee na bu fa xoolee li fa des ñu yóbbu ko vers Thiès damay laaj sénégalais jusqu'à quand ñu war a toog ñu seetaan délinquant yi nit ñu amul fulla ñii nit ñu amul respect ñii ci ñun jusqu'à quand ñuy toog di leen seetaan jusqu'à quand li américain bi di wax when will we say enough is enough Mansour Faye wax na leen ko nee na moom du démissionné bu sénégalais yëpp doon dee ba jeex tàkkit du démissionné donc jusqu'à quand ba kagn la ñuy toog seetaan Mansour Faye ak Macky Sall ak famille Faye Sall bi ñu fooyee sénégalais yi fooyee suñu ay ressources naturelles légui ñu ngi fooyee suñu ay bakkan ba kagn la ñuy toog ñu seetaan Mansour Faye ak famille Faye Sall su démissionné wul Macky Sall dàq ko sénégalais yi lañuy am jom mu am ben sénégalais buy sacrifier pour ñu jël Mansour Faye ko on peut le faire il y a beaucoup de moyens tous les moyens sont bons pour dégager ce salaud de la tête de ce ministère. ba kañ la sénégalais di tok di sétane ay doomu sénégalais di dé goudi di dé beuk accident biñ fi waxone barki dembo 6 six kilos bi suñu frère bi dess Kanka Moussa ak yenen patriote yooyu ak yenen doomu sénégalais yooyu dé genn adina tay Macky Sall était le premier à tweeter regrette regretter na accident 19 morts monsieur le président c'est ton incompétence et l'incompétence de ton beau-frère motax sénégalais yi continuer de yéen barki dem bo ndjay ma défé na ngeen ne jël fi ay mesures ba ah yéen sen mesures yi fumu mu ma défé na ngeen ne yéen seen mesures yi souffrir lo chauffeurs yi moy tax sécurité am ci Sénégal donc si je comprends bien tu prends des mesures aujourd'hui et après demain tu perds presque plus que ce que tu avais perdu cela ne te dit pas de ton incompétence compétence. ce Mansour Faye que mënuloo gérer après gars yi l'en am fulla fulla mooy jaay Dakar ces délinquants ne doivent pas diriger un village à plus forte raison une ville à plus forte raison une région Ou encore une république mangi jale suñu mbokk yep ci ñak bi nga xamne mom lañ ko ñak doomu sénégalais encore man ba léegi mënumaa comprendre sénégalais naka lañuy ñuy ci ab réew ñun ñëpp ñu bokk réew mom réew mi ñun ñëpp ñu mom ko ñu neen pat pataral ci réew mi pat pataral la la wax de ñun ñëpp lañu def ci réew mi ngeen yaakaar ne loolu moo mën a yóbbu réew ngeen yaakaar ne loolu mooy développé réew ngeen yaakaar ne réew yi avancé ci àdduna bi yépp dañuy jël ay nit yu incompétent teg leen ci bopp réew yooyu ñu ne pat di xaar mes frères et sœurs sénégalais vraiment l'heure est grave et je pense que di wax sax ne di wax ci l'heure est grave sax dafa mel ni toujours li ngay dessal waye lolou du ma ne parenthèse la won waye benn partie la won ci sujet bi nga xam ne la bëgg aborder tay sujet bi ma bëgg aborder tay toujours je vais parler aux hommes de tenue euh, may leen di nuyu di saluer encore une fois parce que ñi baax ci yéen ñu ngi gën a baax te ñi bon ci yéen ñu ngi gën a bon comme ni ma leen ko waxee woon démb ne woon naa leen dinaa ñëwaat tey euh, dama leen bëgg a fàttaliwaat ne am nañ fi ñaari doomu Sénégal yuñ fi ñàkk kenn ku tudd Fulbert euh, Sambou et Didier Badji muy ay homme de tenue ñaari xale yu góor yu dëgër yooyu ñoom ñaar ñëpp ñuy euh, kenn ki nekk renseignement généraux kenn ki nekk GIGN maanaam bu ñu nee entraînés ils sont euh, à la tête du succès à la tête de l'entraînement de tout entraînement professionnel boo xam ne nit mën na koo def ci seen profession fa la ñu toll maanaam bu ma doon jël exemple ñooñu sans pour autant être trahir maanaam bu fekkee du seeni ay chef ñoo yónnee ci ñoom wala ay xarit yu leen jege jege jege jege jege ba ñu man leen am sans arme ñooñu kenn mënul faatee seen bakkan noonu ni kon fa ñu faatee seen bakkan dina am yeneen juróom nit wala fukki nit yoo xam ne dinañ fa tëdd ak ñoom ñu yóbbaale leen parce que tellement ils étaient élites ils étaient majeurs de leur profession Madame Didier Badi, plus de 20 ans dans la force amul entraînement bu nit di entraînement ci entraînement dîné, bu nekul ci élite en armes élite en marche en arts martiaux élite en tous les entraînements professionnels muy la même chose pour Philbert Sambou Philbert Sambou d'Anaka Boko Bogon, mengale ci renseignement généraux Sénégal mi ngi top Madame, comme FBI top top top Legi, naka ngay amé ñaar ñooñu armée sénégalaise bi lay waxal ngén tok les hommes de tenue ngén tok général Moussa Fall ñëw di fat sen yon di yónni ay Samba Boy ay milice ñu leen di attaquer ngeen ne yéen da ngeen di ne pat toog ci seeni ay caserne di suivre ay ordre man bi may gëj bi may gëj xam àddina bu ñu jëlee bakkanu benn soldat soldat yépp soldat du bàyyi moromam soldat ginnaaw l'armée vous avez lâché vos frères la gendarmerie vous avez lâché vos frères comment vous pouvez être confortable dans vos corps yen ci sen der gisaguma kenn ku fi taxu ku rebelle wu mais il n'a qu'à vous tuer imaginez ngeen tay un soldat bu rebelle wu ñaar rebelle wu ñett rebelle wu ñu laaj la démission immédiate du général Moussa Fall armée bi yëngatu gendarmerie bi yëngatu imaginez len caserne se yëngatu ngeen toog fi ngeen toog ngeen bàyyi ñu jël bakkanu Badji un frère soldat un frère en arme ngeen bàyyi Macky Sall jël bakkanam armée ngeen bàyyi ñu jël bakkanu euh, euh, euh, maanaam Fulbert Sambou ngeen tok vos frères en armes ngeen toog fi ngeen ne pat vous pensez que cela vous met en sécurité sëñ bi génnal fippu ñu tëj la tu es un soldat. Mais un soldat, c'est de protéger ses frères soldats. L'armée sénégalaise, la gendarmerie nationale, kenn ce que tu jël bal ci bopp Moussa Fall ne ko Tu te ci comment comment comment on di ragal mais mais naka toi tu es un porteur d'armes tu es un gendarme ou tu es un militaire et tu es un poltron ñaar yoy, naka la à la militaire un gendarme tapette. y a de façon soldat vous êtes des soldats ou vous êtes des pourritures Les manque de respect hein? comment est-ce que vous ngeen toog ci seeni caserne à votre faim boire à votre faim êtes confortable Vous êtes de la famille de DJ Badji depuis sa sa disparition amul ben deureum bo xam jox nañ len ko xale yi nan, ñu ngi lek xamuleen ñu ngi naan ñu ngi nelaw et ça c'est votre frère d'armes your brother in arms kana soldat lu ñu leen lan lañ qu'est-ce qu'on vous a appris dans l'armée on va sacrifier ton frère et tu vas dormir. On va tuer ton frère et toi, tu vas rentrer chez toi confortablement et tu vas dormir. Moi, je suis un patriote. Tu touches un frère patriote, tu me touches, je, te donne ça. Bon ben patriote frère patriote mais je ne suis pas un militaire ni un gendarme comment est-ce que Yengen ngeen Wodo tok wodo ay sœur général Moussa Fall mu ñëw di len terroriser di len rey il a fait disparaître deux de vos frères bëccëgu kam et il a pissé sur les corps des morts parce que lan mo gëna a metti doomu adama nga ray ko ba pare nga bañ ko jalé nga jalé woko. Ah, au moins wul ay au moins il a manqué seulement de respect Comment est-ce que, dans un pays normal, on peut rester en tant qu'homme de tenue Nous réussissons sa homme de tenue soldat vous tous vous vous calmez vous vous calmez mais vous êtes complices comment pouvez-vous et tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui m'a attristé on m'a dit que Nimbir Michewe il y avait un autre colonel qui était proche de Didier Badji. Et le nom vient, et la photo vient, parce que nous allons dire, fukki fan lay def, bala ma len di jox lepp. dugu ji defko jéem a Didier def ko xarit ne ko mu jangal ko nap, nu ñuy pour jaxasoo ak Didier naka la def jaxaso ak DJ ba un un militaire hein, qu'on a payé en salle de faire des sales besognes ndeysaan mu nax arme bobu ba DJ saggan ba DJ yorul won armam ci lañ ko meuna kidnapper avec les hommes de Jérôme Bandiaki pour aller l'assassiner ils ont assassiné DJ Badji ils ont assassiné euh, euh, euh, Jérôme notre frère Philbert Sambou. Ils les ont assassinés. Et c'est Moussa Fall qui l'a commandité. Nakangen manatok, militaire, militaires des militaires ngeen Macky quelqu'un qui n'a jamais servi sa nation amul ben ben amul ben fànn bo xamné ne Macky Sall servir na nation ngén yaakar né ben gendarme bu génn suba jéngu nañu jël sax sa bakkan nañ la nañ la nañ la tëj nañ la def lu ne mais nga man mes frères gendarmes qui sont morts là il faut ngén wax ñu fuñu jaar wala on va régler ce problème nañ la japp nañ la fétal tu penses que ñaata nit ñoy génn ànd ak yow toute l'armée sera derrière toi l'armée sera derrière toi toute l'armée nationale rébellion mon wara am voilà tous Wara waratu leen nangou ñuy jël bakkanu soldat si Macky Sall essaye vous connaissez Macky Sall hein? il essaye une fois il va essayer deux fois il y a des soldats qui m'appellent chaque jour Nous, notre vie est en danger toujours xam nga soldats ni nous, ma wax nous on reste armés Nous, armé parce que ku bëgg a jël sama bakkan bi parewu ah. il a pris la vie de Fulbert il a pris la vie de DJ. bépp doomu Adama bu Macky Sall yaakaar nena. nee na Adama bu mu yaakaar koku dafa solidaire ak Sonko wala koku beugou ko moom ko il faut gars tu vois les soldats je vais vous dire un petit secret te yene ñi nekk ci gendarme ak police di ngeen xam li may wax xam nga Macky sàll lu mu xewal temps yi dafa ne chef yi chef yi nekk ci kaw Moussa Fall dafa ne bépp nit boo xam ne àndul ci caay-caay yi Macky Sall di def nii mu ne nañu fexe ñu affecté ko foo xam ne du yor porte d'arme maanaam mënul porte arme xam nga lu tax pour ñu mën a jël bakkanam imaginez ça je vous donne un secret dans l'armée la police et la gendarmerie Si on t'affecte quelque part et on veut prendre ton arme, c'est pour prendre ta vie. Parce que Macky Dafane, ces hommes-là, c'est des élites. Ils sont entraînés comme des fous et ils sont prêts à mourir. Donc, équipe, ne képp koo ne soupçonné nañ ne homme ou moom wala gëmu pour nous jàpp Sonko wala l'a Macky Sall nena, na nañ la affecté fo xamné do yu mëna yor porte do mëna your yor fétal parce que ces gens-là quand ils sont armés ils peuvent se défendre mais buñu jëlé sa fétal, tu vas te défendre comment avec tes mains nit day ñew yor fétal nga nga ñëw américain dafa né you don't take a knife to a gunfight kenn du yóbbu paaka ci xeexu fétal? parce que yow fële ngay toog ak sa paaka nga ni teul teul teul ñu dor bal Macky Sall dafa ne soldats, soldat wala gendarme wala police bo xamné andul ak mom pour nous japp le président Ousmane Sonko pour yak président Ousmane Sonko mon mu que le roi à vie nañ la affecté fo xamné yow do mëna am porte permis porte d'arme manam do porter soldats sénégalais man duma len manquer respect de ndax bax ci suñu vous avez protégé notre pays mais avant de protéger notre pays protégez-vous d'abord kumunul ar sabop, sa bop naka ngay adam. beneen doomu aadama yow boo ta ar sa bop ce n'est pas le cas de Tamsir Sen tué à Koupentoum dama lay wax lu leer li man ma len ko wax te ak firnde la len ko wax ak firnde sama digante ak yalla ak waxtu julli bi may waaj julli des soldats la police la gendarmerie m'ont appelé pour me dire que ñom am na ñu bari ci ñom dañu tit ci sen bakkan ñu parce que Macky Sall li mu xewal temps yi so àndul ak mom su gëmé ne yow mi de gëmuloo ko parce que dafa am nit ci ño xamné biñu tambalé ñu tàmbalee mbirum euh, Adji Sarr bi ak Sonko biñ ko déggé rek ci sen département yi ñu ñom déjà présent dañu né yi génnee leen ñu ci bu leen ñu duggal ci li on n'a pas besoin de se mêler dans ces caaxaan parce que dégg ngeen mbir mi bi mu tambalé ñepp ñew ni ne tiaxan la nitu Macky Sall yi ne deug Sonko gorlu bepp preuve bu ñu wara indi ñu indi ko d'abord teg pour vous dire d'abord le sale boulot les sales besognes que ces gens-là ils sont prêts à tout ngeen dégg ko le procureur de Macky Sall tu connais ce qu'il a dit ñu ne mu ne réquisitoire bi nga xam mom la bind mu ne le procureur a demandé au doyen des juges une mise en accusation de Sonko et de Ndeye mais aussi le renvoi devant la chambre criminelle. Madame procureur bi nous nous nañu Sonko et devant la chambre criminelle parce que nous, ne mu audio yi mam euh, euh, MC Nangul sax wax ci keuyit yi sonko indi mom li woné complot bi ak liñu wax ci mabour Diallo ak yeen sénégalais li ngeen indi yépp ak ñun liñu indi yépp yo procureur néna mom déggu ci dara gisu ci dara mu ne nañu yobbu sonko atté ko parce que loolu yépp sétalul sonko mané procureur jongalil sa bay nga yobbu ko ñu atté ko té fañ koy atté nga jël mbiram bi nga laxas ko def ci pour deret bi baña touru ba mu jeex muy faatu ak sa baye Macky Sall yeen ñaar nga jongal len bañu jong parce que Sonko lu len ko jox duñ ko tek sen loxo Sonko suñu bakkan bi lañ ci tek suñu bakkan bi ak fulla ak fayda lañ ci tek sénégalais wan nañ len ko dem ndax Sonko ba mu wootee mu ne ko tour la ba def gaay yi jox nañ ko presque 400 millions presque 400 millions té lolu dafa togul de toogul ci bëccëg bi naan joxe leen fii joxe leen fële de déedéet nit ñi ñoo jël seeni ay matuwaay rek kenn ku nekk joxe li muy joxe sénégalais yi def ngeen leen sondage def nañ leen sondage sonko duñ la ko jox duñ ko jox sa baay Maham Diallo bu dee yow garson nga sa baay garçon la man Ousmane Tounkara maa la lancé défi jëlal sonko nga woo ko nga xool fii ñu jëm ak yow seen baay Macky Sall de reculé na bu yàgg bàyyi leen ak la patate chaude

bàyyu Macky Sall ba muy génn àddina bàyyiwul mètre carré tey Macky Sall ay hectares la jël ci alalu Sénégal tas ko fu ne il a des milliards de dollars Alioune biir moom bi yaramam tàngee dégg naa mi ngi waaj a dem Angleterre am benn caga bu mu yóbbaale mais comme man yooyu intéressé wu ma du ma ci wax Alioune Sall bu déggee lii dina xam ne xam nañu Alioune Sall menn rakku Macky Sall ma ngay waaj tukki am benn caga bu muy yóbbaale intéressé wu ma nag nit ñi jox nañ ma ko ba jox ma turu ndaw si ba jox ma dëkkuwaayam mais comme intéressé wu ma du ma ci wax ngeen defe ne ñun dinañ leen jox le président Ousmane Sonko vous n'avez rien compris comme noppi nañ reyante wuñu ak yéen rek vous n'avez rien compris waaye xam leen ne guerre bi mi ngi waaj a tàmbali la fin de la reine de Macky Sall et juste around the corner

li li dal filbert Sambou mu dal Didier Badji ngien tok sen kër yi ngeen il du fa fek va vous cueillir parce qu'il sait que vous êtes des poltrons yen tapeti nak lay waxal Macky va cueillir tous les poltrons et il va vous assassiner un à un parce que dans mon harambi, kuko top, mu yak Sénégal lolu la wax man xam nga man nit ñi dañ may laaj ñu ne ma waaw Tunkara Sonko nangam man sama yoon nekkul ci ni Sonko di xalaatee ak ni muy doxalee parce que ça ne ma concerne pas moi je ne suis pas un membre de PASTEF ce que PASTEF dit ne ma regarde pas ce que je dis me regarde à moi seul te man maa ne Macky Sall duñ la jox président Ousmane Sonko parce que c'est un citoyen sénégalais et un bon citoyen sénégalais ndegem doomu xaraam bu mel ni yow ko xam bayam bayiwul hectare ci Sénégal wu fa dara amul dara lo xam yow indil nga ko ci réew mi bu dul sàcc yaag famille Faye Sall lu mi Mansour Faye son incompétence a été prouvée mi ngi noonu incompétence Mansour Faye prouvé nañ ko de tous les bords ngeen yaakaar ne ñun dinañu jël suñu lu baax lii suñu perle bii jël ko jox la ko cette perle blanche que nous avons ñun dinañu jël loolu jox la ko Macky Sall yow sa yow jaaykatu doomu doomu jaaykatu caaf ak gardien ci es président loolu moo lay won ne Sénégal est un pays ñun jugé wuñ la jugé wuñu say waajura ah. man jugé wu ma sa ndey jugé wu ma sa baay dama la bëgg a yëgal ne fi Sénégal la on est au courant xam nga man Tounkara mi wax ni na sénégalais wax la même chose mais mënuñu ko parce que au moins man sama bay bayina ay sakket waxuma la sakket de bàyyi na sakket Sierra Leone bàyyi na sakket Guinée bàyyi sakket ci aduna bi fu mu jaar waji da dan dem ci dëkk tabax fa keur mu ne bi c'est pour keur bi c'est pour gani bu may dinañ ma ñun suñu bàyyi bi ñu demee Sierra Leone dañ fa bàyyi kër bi ñu demee Guinée bàyyi fa kër dem senegal bàyyi fa ay kër te pourtant ñun puukare wuñu Macky yow doomu baa doolo bii defuloo dara senegal amul dara loo ñu apporter lu dul njaqare ak naqar ak tiis ak mettit nga mën a toog ci réew mi ne ñu ñun ñun duñu nangu président Ousmane Sonko yen on fera face man man dara je suis un soninké un minorité au Sénégal mais je te dis que on va te barrer la route lolou man dama nek ci live boma touti ma coupé mais la férié la te dama am dama tukki waye suba dinañu yobbu affaire yi parce que na benn ci vendredi mais ñaarel bi moo ñëwuloon donc mënu ko won yónnee mais légui dina la wo après buma ma légui bu la nexé sax la nelaw jërëjëf voilà donc gay ñun naka la ñuy toggé ci bu Ousmane Sonko né dajale len ñu dajale 340 millions tek ko ci loxo Macky Sall wara jël Ousmane Sonko bobu sacrifier ko dama len di wax dara de man waxuma la procès. Parce qu'il n'y a pas de procès. Il n'y en a qu'un seul procès, un procès de liquidation du président Ousmane Sonko. T'es Macky Sall dafa ne procureur ak juge ak ay juge am yu ne sama yoon nekkul ci loo leen di def bu réew mi di tak ba jeex sax man na continuer nek ci président Sénégal rek Nonou la Macky Macky Sall gëmee Sénégal nit ko xamné ne yow jaral na la réew mi lakk ba jeex Ñepp dé faatu njaboot yi tas réew mi yëpp jaxasoo yow nga tok, nga nek ci jàmm ak duñ ko nangu je te dirai que les sénégalais sont prêts à tout Macky pour faire face Té, man gëm na né Sénégal bokk na ci réew yi nga xamné ñun ñoo ëpp jom ci aduna bi gëm na né sénégalais bokk na ci doomu aadama yi nga xamné ñom ñoo gëna baax ñom ñoo gëna a seen réew ci aduna bi malgré ce que je vois avec notre militaire et gendarmerie xawma lan mo fa xew mais dama car vous ne comprenez pas que en tant que soldat jarul sax dajale fuk mais un soldat genn dem ne Macky non arrête ne Moussa Fall arrête ñaar genn ñett un naka ngeen di un sen bir kër votre frère Fulbert je vais vous dire quelque chose Didier Badji à travers sa famille et des preuves que j'ai preuves preuve la wax de Didier Badji ba mu dee ba mayu ñu accès famille ci benn deureum pour ñu mëna dund déggoma dé du gendarmerie mo wo famille am xool d'où du kenn personne n'a appelé la famille de Didier badi pour voir comment ils sont xana doomu xaram no bon bon bon no soxor soxor soxor ay il a servi son pays pendant des décennies pendant des dizaines d'années Didier servi le Sénégal Koku budul dara même Boudé, même si avait déserté parce que les enfants sont innocents sa femme est innocente le gars il est innocent ndax mënu leen ñoo indil benn pepp mbir boo leen ko toppee ndax bi ngeen fi génnee topp Pape Alé Niang secret défense xam nga lan ngeen def ba ngeen ko defee sous contrôle judiciaire da ngeen ko ne bu génnee mënul wax ci dossier bi et pourtant ba ngeen koy enquête amul benn secret defence boo leen ko masalaaj moo tax ñemewu leen mu wax li tax ngeen jàpp Pape Alé ci biir këram ngeen ne ko bul waxati ngeen jàpp doomu goru Sénégal yi yépp def leen sous contrôle judiciaire Ousmane Diagne tey génn na ak Papito Kara keroog Abdou Karim Gueye la ak Cheikh Omar Diagne ngeen ne Sénégal yépp da ngeen leen di def sous contrôle judiciaire Macky Sall nee na Sénégal kenn du waxati donc gars yi boo leen gisee may wax biti réew mooy ñun ñoo war a wax comme Macky Sall nee na Sénégal kenn dootul wax te sénégalais yi ne pat suba Macky Sall dana décréter ne Sénégal kenn dootul saw jour national de ne pas pisser dictature vous savez ce qui est une dictature Moi doomu adama la wax ni ngay sa dund ni ngay fi ngay jaar li def ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay dictature Sénégal bëgg ñu Bamba Allah Malik Reu maam bu kunta reu reu reu reu réewu réewu réewu réewu cerno souleyman reu reu réewu réewu réewu cheikh omar foutiou Tal. réew moo xam a une référence on a tous les références du monde Amoul ben réew ci al Ndiaye Réou Ladjor Djor Ngoone Latir Diop Réou moo xam ne ay bagnkat ñoko ko ay bagnkat ñoko ko taxawal ba tay, ngeen ne ñun dañ fi tok benn doomu xana bu nangamtaan ndeyam bu tekkiwul dara ci aduna bi moy ñew wax ñun ñuy suñu la gendarmerie nationale il est temps que vous preniez vos responsabilités général Moussa Fall c'est un imbécile encagoulé Malen Malen wax li dé, bu len déglu général Moussa Fall la yàlla sàkk ci Sénégal yëpp moo ci gën a dëng loolu man maa leen ko wax te ak ay firnde nag du nit ku baax sori na baax kii di général Moussa Fall kii di Doudou Ka kii di Benjamin euh, euh, Jérôme Bandiaki ak ñeneen ak ñeneen dinaa leen dinaa leen indil ay tur Doudou Ka dara yëkkatiwu ko lu dul jéem a taalaat Casamance Casamance ñi ko taaloon démb du ñu ay joolaa de dem leen ngeen xool kan moo nekkoon gouverneur u Casamance dem leen ngeen xool kan moo nekkoon commissaire police bi ñu mënee arrêté la la ce ce vent sanguinaire qui se passait en Casamance du ay doomu Casamance ñoo ko taal mbokk Doudou Kam yi la Doudou Ka gis nga duudu Kam yi ay mbokkam ñoo taaloon Casamance nit ñu mel nii baaxuñu ci ab réew doomu xaram boo xam ne judduwam leerul kooku kenn waru koo jox mbir mu gérer xam nga li ñuy wax juddu bu set dafa baax ci doomu aadama tey boo leen toogee ngeen yaakaar ne Casamance li ko taaloon waaw c'est une rébellion waaw c'est une nangam non non non ay nit yu bon ñoo ñëw rax ci ay nit yu baax jaxase leen ba taal mbir ma Les Doudou Ka momu provocation bi ngeen gis muy def ni ci la même chose dafa bëgg provoquer yëngal yëngal ethnie bi yëngal fi parce que ku armé ben Jérôme Bandiaki muy mankaañ di manam, man nañu ci race bu respectable ci Sénégal Jérôme Bandiaki di race bu ci Sénégal a tay euh, euh, Jérôme est un mankagne les mancagnes et les Jola ne se touchent pas c'est deux familles qui sont très bien ils habitent en cohabitation Ndiago, mancagne djola, c'est une famille Nous indi ben Jérôme Bandiaki accompagné de Doudouka. Nena len leen man ma len ko wax j'ai des preuves que Doudou ñi nga xamne ñokoy garder c'est les hommes de Jérôme Bandiaki qui la garde ñooñu ñooy yëngal Sénégal tay. dama la ne ñi dëkk Casamance allez les demander ne kan mo nekkoon gouverneuru Casamance kan mo préfet kan mo nekkoon commissaire de police cette race est tout sauf diola, amul ben Joola bu ci rax ñetti nit yooyu ñoo taal ñoo taal Casamance ñi xam-xam et pourtant aujourd'hui boo waxee rek ñu la Casamance Casamance Macky Sall est dans les mêmes œuvres ay mbokku Macky Sall ñoo Casamance il est dans les mêmes œuvres œuvres yi muy dox muy œuvre di yëngal jaral na ko Casamance Sénégal ba na Sénégal parce que le mal est profond ce qu'ils ont fait à ce pays Gombi bi ñu defal Sénégal Gombo, boobu ils ont volé tous nos deniers publics sàcc nañu lépp lu ñu am ci réew mi nañu suñu or sàcc suñu zircon sàcc suñu pétrole sàcc suñu gaz ils ont tout volé Bon, nous paree ci loolu nag léegi ñuy dem mais comment tu peux comprendre deux personnes d'un village Nyoming, hein? ah ñu dem naka ngay delee ñaari nit d'un seul village d'un fils digne d'un village Nyari fils digne d'un village tu vas les assassiner Lulu, est-ce que xam nga ñaata nit ñoo mais imaginez ñaari nit yu important ci ben village nga dem rey leen ndeysaan mu am kenn si ñom sen xarit bo xam dafa jël bakkanu boppam parce que mënu ko won supporter ngen yaakar ne yen Macky Sall du assassin Yen man ngeen tok fi ngeen ne Macky Sall est un président normal Yen militaire gendarmerie Sénégal la police nationale Yen ay toog fii yen ngeen mën a Macky Sall ne c'est un homme Macky Sall n'est pas un homme Macky Sall est un traître et si vous restez dans ces casernes dina len par ben ba ngeen dina va tuer tout le monde Macky va attaquer l'armée il va attaquer la gendarmerie il va attaquer la police parce que dans cette armée nationale Macky a ses hommes Maki, dafa placer ay pions nakala a placer ay pions dafa jël ay ay Samba Boy na ay milices jël infiltrer police ak gendarmerie nationale ay milices je vous parle des milices Maki, ay milices la jël ay nit armé leen dem di attaquer gendarmerie ak police mais lolu naka ngeen ko meuna nango Balama de, dee ñu ne Tunkara appel à l'insurrection Dédé, appelé au ma insurrection limay appelé moy ngén dem fekki nday Macky ci biir palais bi génné ko fa man appelé au ma à l'insurrection j'appelle à déloger Macky Sall du palais parce que bañ koy dénk palais bi dafa am ay charte yu ko tënk charte yoy moy respecter suñu république et comme il ne respecte pas la république c'est un traître il ne mérite pas d'être dans ce palais c'est un point entrée cela n'a rien à voir avec instruction ou pas man ne ma pas ragal ma man je defé l'uma wara def loi wara dal sama kaw na dal sama kaw nit dal sama kaw na ñew billahi wallahi tallahi lazim billahi wallahi bolento len toogee seen bir yalla mo xam jullit la ndax dina ko ndax duma ko allah alim yalla rek Moham, xam peut-être duma ko waaye Maki va assassiner la moitié de cette population Maki dina que def situation il ne Des di gënal Sénégal rek ngay assassiner hommes de tenue Gundar kam masqué est-ce que xam nga te jéemu ko sax masqué parce que xam nga non na ray ñi ba paré mu dem jalé seeni ay mbokk neexal leen jox leen li jappalé leen Macky a donné un million de francs CFA déglu leen ma de néna néna nee na gisaguñu les gens qui sont morts dans un accident xawma ma bus bi lan moy taxawayam xawma garantie je ne sais pas je je ne juge pas n'est-ce pas Macky néna ay nit yu nekkon ci ay transport en commun yu dé déglu leen Macky Sall Macky nee na ay nit yu dee ci transport en commun dafay récompenser seen ay famille déglu leen ma de ay citoyen lambda mën na nekk jaaykatu xorom mën na nekk jaaykatu madd mën na nekk jaaykatu soble mën na nekk jaaykatu lii mën na nekk bandi mën na nekk lu mu bëgg waxuma ne c'est le cas mais ay nit yu nekk ci transport en commun yi accidenté Macky nee na dafay récompenser seeni famille sénégalais yi lay waxal de boroom xel yi pendant ce temps Macky ñaari soldat nañu bu dee moom nee na reyu leen moom weddiwul sax ne moo leen rey moom dégguloo général Moussa Fall génn fi weddi dégguloo Benjamin euh, Jérôme Bandiaki génn fi weddi dégguloo Doudou Ka dégguloo kenn génn weddi ne ñoom ñoo jël bakkanu doomu aadama yooyu kenn weddi ndax ñun wax nous ñun dañuy xaar ñu génn wet dañu indi ay nous nee leen nee leen am sax soldat boo xam ne ndekete moom piégé Benjamin amin Jérôme amin nokkale euh, Didier Badji ba ñu mën a jot sans fetal xam nga Didier Badji comme ni leen di wax moom ak waa jële yëpp leen gis dañuy armé ils sont armés et ils sont entraînés comme des fous xamuloo li may wax de maanaam góor fukki góor bu ñu bëggee dal ci kaw ñooñu man nañoo jël seen bakkan ñoom ñëpp tël tël tël tël maanaam ils sont entraînés comme ça ay élite lañu ngeen déglu ma Macky nee na ay élite nee na ñi ñi ñi ñi nekk ci kaar bi ñi fa gaañoog ñi fa accidenté ñooñu day récompenser seeni ay famille est-ce que xam ngeen ne famille Didier Badji ak Fulbert Sambou ba léegi kenn lijjantiwu leen Sénégal nag ñun ci ban réew lañu nekk ana yërmande bi suñu maam yi def ci ñun ah bi suñu maam yi def ci ñun ñun ana yërmande bi boo waxee dégg naa ay nitu Macky yuy ne voilà non bu ñu deful lii voilà donc moral bi ci gendarmerie ngén yaakaar ne moral bi ci gendarmerie bi c'est élevé du gendarmerie nationale du Sénégal vous pensez que c'est élevé mais ce que vous savez le danger que vous avez fait à ces personnes yow naka ngay né da ngay récompenser ay nit yu accidenté pendant ce temps nit ñi nga xamné ne ñoo servir sen réew pendant des trente ans wala vingt ans ñooñu récompensé ulo ci da nga wul sax sen famille pour xam ndax gaaya ngi dund wala dee kenn ki mom na amul autopsie manam fat nañu bakkanam jël nañ ko amul autopsie eh sa mbokk dee hollo mais do xol lu ko ray donc sul nañ ko léegi nak kële ñu ne ko yow sa mbokk bi dafa disparaître xamuñu fu mu ne voilà donc koku geej gi dafa am kër ci biir geej dafa am kër ci biir Didier Badji dafa am kër ci biir y' a pas d'enquête. Mais mais bu amoon enquête ça pourquoi gendarmerie une famille sous soulager leen en attendant parce que c'est des gendarmes et un soldat qui est mort bu dee enquête am na ngeen bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne enquête am automatiquement Macky allait récompenser ses familles et s'occuper des familles balaa dara di xew mu ne leen ah comme ay gendarmes, lañu continuer leen leen jox salaire. continuer les ñu jot sen xaalis sen famille dund maki dag lepp ray len ba pare dag lepp daf len ray ba nga rey seen mais loolu la baga def c'est ça la vérité si tu tues un père de famille et que tu dis que le père de famille qui nourrissait sa famille il faut couper tous les euh, euh, euh nourritures mais tu veux aussi tuer la famille Tes militaires yi amul kenn ndeysaan yéen Didier Badji Et Philbert Sambou dañu am ay promotionnaires man ne ci ne kenn tu es en sécurité ndax bo len togué sen kër yi dina len fa fekk mais pourquoi ne vous levez-vous pas et soutenir vos frères mais levez-vous et soutenez vos frères il faut démissionner vous avez le droit il faut démissionner wala ngeen kaas ngeen bind ay lettres yéen ñep ngeen genn les soldats ngeen genn yéen ngeen marche jëmali palais si Maki assassine un de vous vous pensez que vous êtes en sécurité xool leen rek xool leen rek yéen laa waxal de ngeen xol luy dëgg ngeen wax ko peut-être tunkara du leen neex ni may peut-être c'est dur et lolu c'est ma nature mais man dama yaakaar ne ñu rey sa frère parce que man li ma dégg ci militaire vous êtes des frères hé man sama doom bu naroon dem militaire Sénégal du dem et j'avais l'intention vraiment mes, mes, mes, mes sons, mes, mes, mes fils, ils vont servir, ils vont servir l'armée. wax len ko nena Nous ils enrôler ci armée bi servir cette nation ndax man ko à mon âge j'allais le faire mais servir cette nation mais armée sénégalaise elle ma gis do len gawa am gande ay yen ñep ngeen frankulaay fi ngeen tok ñun civil ngeen di bay ñu kaas nous on est des civils vous vous êtes des soldats vous êtes des frères yen kon si vous allez en guerre on prenait un de vos frères vous allez être comme le capitaine euh, J, hein capitaine Dieye ngeen bàyyi sen frères yi daw ñibi xam nga Amérique lutax ma faa Billahi wallahi sen ben soldat bu desee fenn armée bi yëpp dëkk bi yëpp moy mobiliser wu hein ay sen bombe atomique lépp lañuy mobiliser dem jëli ben doomu adama bu même si c'est le corps du mort ils vont aller le chercher même suñu amul corps même bu dee baram yi la dañ koy jël ñu defal ko caisse bu baax décorer ko jox ko propre burial armée saluer ko yen ngeen tok ngen trahir votre frère d'armes DJ Badji oh Philbert Sambou vos frères d'armes vous les avez trahis Ngen toksen Birkeri, vous vous considérez comme des hommes vous pouvez regarder vos familles et vous vous vous appelez des militaires ou des gendarmes man ngen yen ngen toog seen biir militaire voilà moi je suis capitaine nangam non non non non non non appelle-toi un, traître. Je m'excuse. Hein. Peut-être le langage est dur. Mais dans ma si tu es un soldat et tu as des frères soldats, nga dé, nga les fofu. D'abord, tu dois, tu dois supporter et protéger les citoyens sénégalais. tok, Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous avez pris le temps, les amis, les frères en armes, appeler la famille de DJ, dire à sa femme, Madame, nos respects. On fera tout ce que nous pouvons dans notre pouvoir pour ramener notre frère ou au moins avoir justice pour notre frère. Oh, il ne nous respecte pas. Non, je vous respecte. Mais je pensais que la hiérarchie. Les soldats sont des frères d'armes. La gendarmerie, vous êtes des frères d'armes. Jusqu'au contraire. Mais je trouve que la gendarmerie nationale du Sénégal est tête à tête ak quand on tue ton frère ah ah, ah c'est ça c'est son perdement tu sais moi je vais rester dans mon coin et je vais rester calme c'est vrai ça. « Ma qui ira vous trouver dans vos casernes et dans vos maisons ci ñoo ci dina dem fekki ba seen biir kër parce que c'est ce qu'il a fait à Fulbert et Didier et ils sont entraînés j'en suis sûr qu'ils font partie des dix élites corps du militaire et de gendarmes manqué wu malin respect comment ce soulard de Moussa Fall ngeen di avec je ne sais quoi ngeen Baye mouy jël seeni ay bakkan di jël seeni ay bakkanu famille c'est un délinquant Moussa Fall c'est un bandit c'est un bandit en encagoulé un bandit en tenue xam nga li gëna a dangereux ci adina moy say say bu sul tenue parce que say say déjà say say la nga solal ko tenue da nga légaliser banditisme patriotes yen lay waxal de ces gens-là ils sont lâches ken mënul compter ci ñom ndegem seen frères yi lañu ils ñu jël seeni ay bakkan Hein? personne ne peut compter sur ces gens-là ñun nañu protéger suñu bop rek suñu ennemi duñu du yenn nak moi j'ai aucun problème avec ni la gendarmerie ni la police ni l'armée je ne suis pas quand même content de vous. Et je pense que j'ai plein de droit. Et comme euh, de l'autre sens, j'en suis sûr et certain que beaucoup parmi vous, vidéo bi content. ci remercier au moins ma fateli vos frères d'armes ont été assassinés par Macky Sall et son général corrompu de Moussa Fall te ragalu quand vous avez pris arme c'est de protéger votre nation à tout prix

amna lo xamne ne bis bo len ko defone da ngeen di gis Macky Sall ak nitami yi régler mais ça prend ça demande du sacrifice ça demande du sacrifice sacrifice la laaj sacrifice la laaj laajul nga tok sa bir keur bay ñu ray sa xarit nga tok sa bir keur bay ñu ray sa frère nga ne pat ah, <laughs> ah, <laughs> ah DJ Badji ah en tout cas eh, <laughs> Philbert shame on you Wallahi shame shame shame shame Moi gache gache. Papa rengen pare ngeen badja, ay ay nit yu tekkiwul dara yi nyo nyo ne Wallah wala l'autre Camara la Camara Camara Nyo ne leen voilà ils ont les pieds. voilà c'est ma qui les a tués mon ami Yen naka ngeen di naka ngeen di teudé? vous dormez comment tranquillement Filbert, man Filbert, bi je me suis dit une chose je dis que cette armée républicaine sénégalaise que je connais cette gendarmerie nationale et républicaine que je connais ils ne l'accepteront pas ils vont régler ce problème au plus rapidement possible un mois deux mois trois mois ngeen ne pas te pataral. Il y a des nit mën na leen fekk seen camp bi fa arme tirez wala après vous allez vous faire l'héros national en ce moment vous allez sortir vous défendre quand on vous a envoyé aujourd'hui deal, allez tirer sur des petits enfants, les traîtres, quelques-uns de traîtres là, vous allez sortir et aller tirer sur les petits Sénégalais. Pendant ce temps, Macky Sall et Moussa Fall est en train de tuer vos frères. Vous êtes complices. Vous êtes complices. Waouh. Vous êtes complices. Mangi, Mangi nak comme ni ma leen koy waxe du njëggal de njëggal mom tay duma ko ñaan tay rek la mas a wax lo xam daf ma neex ci sama bir xol moy ma janoog sama armée nationale janoog sama police nationale bu leen ma jaay man sen njàmbaarde bu leen jóg suba di saga ci sen bir camp yi bu leen jóg man di ma saga de sen bir camp yi de aller faire face à Macky Sall mo rey sen ay frère man reyuma ken je n'ai tué personne Filbert Sambou DJ Badji ces deux noms là ça c'est des zéros nationaux ak lo leen bëgg ñu tak tak tak duñu tak et l'histoire retiendra je serai parmi ces sénégalais qui se battront pour ñi am ay statut ginnaaw buñu dindé dindee statut xaw ma euh, de Gaulle xaw jom yoyu statut français yoyu ci ay Saint-Louis ak ay nangam ces gens-là méritent des statues au Sénégal parce que c'est des gens qui ont servi leur armée et servir leur nation dignement un fils de Katkana, un vendeur, un fumeur de, de, de, de chanvre indien, des imbéciles comme Moussa Fall, ngeen ñëw ngeen jël bakkanu doomu jàmbur yooyu bàyyi seen njaboot sans pap bàyyi sen jabar yi sans jëkkër ya yaa allah yal na yàlla atte leen ak seeni njaboot yal na leen yàlla atte ak njaboot man dama daan dégg euh, les corps militaires disaient que tu ne tues mais tu ne déshonores pas maintenant on vous tue et on vous déshonore ndax pas paasewul yéen naka ngeen mën a toogee ñuy jël seen bakkanu frère kenn ci yéen sax jógul dem rebelle mais on pouvait voilà man on comprendre les. je pouvais tout comprendre je pouvais tout accepter tout sauf l'assassinat de ces deux soldats c'est triste je m'assois je demande aux familles ndax vous avez entendu la gendarmerie ñu ne ko famille vous avez même peur d'aller visiter les familles de vos frères mais ils n'ont qu'à te tuer mais au moins honore ton engagement ndax vous avez vous avez juré de protéger le Sénégal surtout vos frères en armes vous avez juré de les protéger ne def vous n'êtes pas nous nos ennemis votre seul ennemi il est dans le palais de la République quand nous les Sénégalais là on se lève pour nous défendre laissez-nous tranquille ngir yàlla ñaan nañ leen ko bu leen ñu rey bu leen ay bu suñu ay frère déedéet toog ci seen caserne yooyu ngeen bàyyi ñu ñun ñu xeex ak Macky Sall nous on peut faire face à Macky Sall ndax ñun bu ñu xeexee ak Macky Sall suñu 10 minutes yi xajul ci moom jeunesse bi lay woowaat encore appel solennel bu leen dajaloo xam naa ne xeex ak Macky Sall yàggatul dara waaye bu ñu dajaloo ci benn place sénégalais yi laay waxal de bu ñu dajaloo fenn nous préparez préparez-vous vous êtes chez vous soxlawu commentaire Tunkara wax je suis prêt à allumer vous n'avez pas besoin écoutez-moi attentivement soyez prêts chez vous et préparons-nous à nous défendre <coughs> on est prêt à se défendre Damane, préparez-vous l'heure de, la, de, de, de, de déloger Macky Sall est très proche Macky duñ ko baye mu laal Sonko tay, duñ ko baye mu laal ko suba exactement Sniper tu sais il y a un problème Sniper a corrompu il y a des euh, pro Macky dans l'armée que Sniper a corrompu Madame Sniper dafa corrompu dafa corrompre ay ay ay ay ay kilifa duñu ay kilifa sax ay yambar ci hiérarchie militaire bi ay colonel ay commandant ay lieutenant moom daf ci am ñu mu corrompre ñu bari sniper donc boo gisee tey lu bari di xew ci suñu armée Euh, mu ne il a renforcé son arsenal de guerre moom yéen tëddi leen ngeen nelaw ma ne dinaa leen wax dara xam ngeen ban dëkk moo ëpp arsenal ci àdduna bi yëpp Amérique la quand la population américain est levée George Floyd laa leen di fàttali barki Dembo Ndiaye président bi moo reculé jégalu arsenal boobu Macky Sall dajale yëpp arsenal boobu pour ñu dijjati ko la moom ci palais Euh, arsenal bobu lu koy il va tirer sur qui nga defee ne Macky Sall cette population sénégalaise va lui laisser faire ñun dinañu dajalo benn part mois de mars Macky Sall avait toujours l'Arsenal te ñefale nañ ko ba tatam tank buñu jogaté ñun xam nañu fu muy jaar lui il s'est préparé avec son Arsenal mais il connaît pas nous notre Arsenal moom bosam la xam moom bosam lay wone mais ñun suñu bos xamu ko ngeen defee ne ñun li ñuy de la woon moo woon moo mooy woonaat dañuy jóg rek voilà ñu ne voilà jóg leen yëngal leen tuuti fii yëngal leen non non non on est prêt on a notre plan de route et on attend on attend que Macky Sall siffle le départ ñun dañ koy bàyyi moom mu siffle départ ñu yàq ko ñun duñu siffle départ pour moom moom la ñuy bàyyi mu siffle départ ñu yàq ko moom ak ay nitam ñun ragaluñ ko. peut-être ragal mais ñun on l'attend avec les pieds fermes droit dans nos bords. ñun ñi Macky il le connaît Macky sait qu'on l'attend ñun wuñ ko na Nalal, rek ñun wuñ ko de élection moy am Sénégal té mom du Sénégal ay élection yu lèr nañ yu transparent kii jël réew mi defe naa ñun ñëpp mën nañ koo tey boo ñu yeeyee ci ay nelaw xam ne waaye du tee dañuy bàyyi rek mu organiser ay élection gars yi maa ngi leen di ñaanaat di leen yëgal ngeen xam ne famille euh, Didier Badji nee nañu Didier Badji jotul benn dërëm njabootam jotuñu benn dërëm biñ ko jàppee ak léegi euh, woote nañu def nañu lu ne pour euh, compte bancaire am ñu fexe nu njaboot ji jotee xaalis bi gendarmerie jàppalewu leen militaires yi jàppalewuñu leen euh, et cela va aussi pour Fulbert Sambou ngeen xam ne Sénégal nekk na réew moo xam ne kenn xamatul Personne n'est en sécurité dans ce pays. On est tous en souci. Nyep sous contrôle judiciaire ku sous contrôle judiciaire gars mangi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat dig daje suba inshallah. allah wa wa rahmatullah wa barakatu